ki ma bëggoon namee nag mu ngi tudd may mun a sekk ñu gën ko xam ci may mu Nabi bu demee ci biir waxtaan dinañ xam lu tax ñu di ko dakkantale noonu ki nga xam moo di Adja Maymuna Seck tey dafay indi li nga xam mooy musique spirituelle boo xam ni ca dëgg-dëgg ku ko dégg sa xol noo def dina tooy loolu nag du ma ci sori du ma def lu dul bàyyi leen ki nga xam mooy suñu invité ginnaaw bu nuyoon teg yéen safoon teg yéen ñu daal di xuus ak moom ci biir waxtaan yi kon nag ajaa may mun a sekk asalaamaaleykum nga nuyoog suñu mbokk yi ñëw tamit ci li nga xam mooy sa parcours bi nga xam ne ñëpp bëgg nañ ko dégg. waaleykum salaam rahmatullah as nuyu naa la. maa lay fay. ziyaare naa la. ñuy delloo ziyaar yàlla nangu ziyaar. jërëjëf di sant yàlla bu baax baax a baax di julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dama kontaan mm-hmm. ndax dañu nekk ci weeru Shaabaan muy weeru baraxlu nga xam ne weeru yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ko borom bi jagleel ngi waajal koor gi yàlla may ma lii tey ji ci jëmm ju tedd gi mu ñëw fii nga nar wax man ci rasulilaay dama ci kontaan lool macha allah di sant yàlla bu baax alhamdulilahi wa shukri lillah laata ñuy xuus ci waxtaan wi Adja Maymuna sama laaj njëkk mooy parce que ñun la gisee yaa ngi ak xalima boo xamante ni xalima bu tedd la ci ngay bind di bind ci koo xam ne ku tedd la bu ñu bëggoon xam loolu lan moo la ci ñaax ba nga tàmbali dugg ci mbir moom waaw as maa ngi nuyu ñëpp nag Sénégal yëpp waa diaspora samay mbokk ak samay am di jàmm ak kii nga xam ne moo ma taxaw ba lii ma def nii taxaw muy soxna Diop jeexi production ak Papis ma di ci sant yàlla bu baax a baax a baax wa wa waaw waaw waaw li ma nekk nii wax ne c'est un don céleste du man ndax ku xam ci sama timidité musuma won tok imaginer li sama baat dina jëg jëm kaw mais dama xam ne lepp yalla sunu borom la c'est en 2008 en septembre 2008 le 7e jour du mois de Ramadan lama sama benn tante bo xamne ne ku bax la mom tamit macha allah dama xey rek mu woma ma ne ma dama bëgg nga bind ci nabi dafa am luma ma mu yeb ma lool ma tok ba mu ma ne comme li luñ ma sas la naa ko ma jël sama benn agenda tambalé crayon la jël def sama salat mais buma ma sama loxo rek day melni du man ba yenen ak yenen yo xew ci ba mënuma koo wax fii saal waxu baatin na daal mu jéggal donc may dem fu ma yëf yi fekk rek ma jël sama stylo bind denc teg fu ma fekk rek ma denc teg ba en 2010 mu woowaat ma moom Aïcha lañ koy wax ku baax la ku am diine macha allah di ma jàppale bu baax li ma nekk nii yépp moom moo ma ci poussé nit ku baax macha allah. ma ne léegi woo ma ne ma dama bëgg li ngay bind di ko nëpp nga génne ko ndax rasulillah ngi yiw la ma ne ko dinaa ci góorgóorlu si laa jële benn page ci poésie li ma bind def ko dans le journal Obs du 25 octobre 2010 maa ngi koy ko nit ñi waaw laa njëkk a fësal nit ñi apprécier bëgg lool bëgg ko lool du tere tamit ma continuer di bind rek macha allah waaw ah, noonu daal la demee daal waaw. Ah. laata ñuy sol dafa am loo xam ne foog ma laajte ko parce que bu dem ni Adja may mun a sekk waaye ñu ngi lay dàkkantelee may mu lan moo sabab may mu nabi boobu parce que tur bi gàtt na neex na am na solo lan moo indi loolu. di sant yàlla bu baax may mu nabi bi nag li ko indi sama benn càmmiñ boo xam ne surtout maam Cheikh ant Mbàkke la bu baax la gis ni may doxaleeg yépp borom gaawaan mu ne ma Cheikh bi Bichri nañ koy wax mu ne ma dama la tudde léegi may Maymuna bi daal di koy fësal ma même ba ci internet beeg ñëpp Maymuna bi lañ may woy donc ma dolli sant yàlla bu baax di sant sama waajur yi sama waajur bu jigéen gàcce ngaalaama wuuf na ma suturaal na ma muñal na ma ñaanal na ma may dolli sant yàlla bu baax a baax a baax a baax li ma tàmbale nii ba ma kay tàmbali dama ñew sukku ne ko yaay ñaanal ma mëna ma démal ci kaw ci kanam rek donc sañu mo def lén té xumako ndax fi ma tollu ni moy sama kilifa amna nak ay sëriñ sha allah mbacké mbacké famille ñoom ñëpp la amal jamm këru këru tariqa këru diina yépp ma ngi am ànd ak ñoom di leen sante bu baax di leen ziar lu bare bare bare bare waaw kon nag euh, ñaanu yaay lu am solo la. Mhm. lool la naan gëmmal waaxu ca bul di gestu. Mhm. borom yaay ju baax du fakkastalu kon nag Adja may ñu xool clip bi de si waat ci plateau bi. sabige ñun sopp nabi yaa muxtaar la ñuy sallallahu ala muhammadin o ahmad nabiyun tu es l'extraordinaire et l'éternelle lumière des lumières tu es l'ami intime de l'exalté et seigneur des lumières tu es la lumière mondiale qui ne subit aucun délestage. Tu es la lumière énergique qui ne subit aucun ravage. Oh Ahmad, cher bien-aimé qui appartient à la royauté. Oh Seydir Moussalina de la communauté. On reçoit l'envoyé d'Allah subhanallahu wa ta'ala, détenteur du titre sublime. Oh Ahmed, fils d'Abdullah ibn Abdel Moutalib muttalib harisun aleykum. sallallahu alayhi wa sallam. gis dis boo dafa la jóge wàcc sa ak leer nga jël loolu tudd ko single bi nga njëkk a génne noonu faram fàcceel loolu. waaw loolu moom xam nga yàlla sunu borom lépp lu ñu war a doxi rek daf ma ko wàccal ci aaya yu tedd yi alxuraan al jaare ko ci sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam risun dafa nekk euh, aaya boo xam ne mu ngi ci biir laxat jaakum hmm. te yonen yàlla sunu borom bu muy wax ak yonent bi noonu la ko tudde muy arrosum aleykum la bonté la compassion envers les croyants yërmande kese ak mbaax ak yërmande ak yiw ak yiw kese jóge ci moom mu yéene ko loolu la ma pare nag sunu boroom nee na laxat kaana lakum fi rasulillahi asanatan mooy na topp Seydina Muhammad parce que c'est le modèle éminent. effectivement c'est l'exemple. nañ royukaay dëgg. ro royukaay dëgg ci ngay kilifa. di xale. di mag di ndaw kuy jàngale kuy sàkku xam-xam jigéen ñëpp macha allah royukaay la amul werante te bu ñu toppee rek ci ndigalam rek. macha allah ca kanam lañu jëm ndax yàlla subhanallah wa taala il nous a ouvert les voies de la miséricorde n'est-ce pas mm-hmm. dëgg et les voies de la félicité c'est-à-dire le bonheur éternel éternel waaw alhamdulillah. la alhamdulilah maanaam foofu daal ku fa tant sa tànk daal ah. boo amee tamit texey àdduna li gën a wóor mooy war nga ci mën a séentu texey àllaaxira moo yoon bi nga xam ni moom lañu Seydunaa Muhammad tracé bu ñu tegoo ci siraatal mustaqim ci loolu rek la ñuy wut la félicité éternelle wax ji rafet na mm-hmm. ma gis tamit ci sa clip bi bi ñu seetaanee musique bi bi ñu ko dégloo ak euh, poésie bi léeg-léeg nga waxee ci wolof léeg-léeg nga waxee ci tubaab. Mm-hmm. Euh, lan moo sabab loolu da ngay bind ci naka la demee daal loolu. Euh, parce que man damay bind ci ni mu ñëwee rek noonu laa koy binde damay bind ci francais di bind ci olof léeg li ma dugal aaya waaw noonu la demee daal waaw te su ma bindee nii ba pare damay am benn sentiment def fierté boo xamante ne du mu mën a xam sax nu mu toll xam nga comme li ñuy wax ne ku nekk li ngay bëgge man di bind ci nabi di ko yëg di ko sentir loolu moo moo may dundal mooy dundal sama ru le jour de mon anniversaire dama yéene ne damay woor pour sante ko sunu boroom ma xëy fajar pour naan sama café noonu rek mu am lu ñëw rek traversé ma may xalaat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam coono ba mu daj lu mu daj ak na mu mettee te dawul yuuxuwul rawantewul daxantewul lépp ngir terminer ses 23 ans de mission machallah ma tok donc ben vers traverser ma moy lima ma mujjee bind quelle endurance dans la douleur pendant qu'on te jetait des pierres et des cordes tu rendais des prières de miséricorde yërmande kessé la don demee xoolul ko ko togn wala ko ko def lu ko naqari lépp yërmande may xalaat bi mu nekkee tayif avant tayif mu nekk waa kër baayam ñu sonal ko mu ne xaar ma dem sama waa kër néegu ndey ndax mu tane gis nga la ko fa dal ñu di ko sànni ay xeer boole kaak ay xaj ba yaram yépp di naaj jibril wàcc mm-hmm. ne ko sunu boroom neen dañuy boole ñaari montagne yi nekk tayif ñu tànc leen dootuñu exister moom si boppam sax waare waar na leen mm-hmm. ni leen ñii ëllëg mën nañu gëm Seydina Muhammad topp diine lislaam

ah waa lépp daal moom mu ngi ci biir daal ay quelques points rek laa ci mën a définir lépp lu laay yërmande mu ngi ci moom waaw mu ngi noonu digle lu baax wallaay wallaay mhm. kon nag euh, Adja Maimouna balaa ñuy gën a sori ci waxtaan bi ni ma déggee poésie bi ngay def dafa mel ni am na musique boo xam ne ñu lay gunge musique boo xam ne dafa dal dañ bëggoon xam instrument yi xam ne bi nga demee studio moom nga waaw may sant yàlla bu baax ndax ni ma ko bëggee rek nañ ma ko defale ndax rasulillahi dafa daloon dafa dal tey macha allah ci ngi ci biir euh, clavier baa ngi ci xalam baa ngi ci biir yaakaar naa ak guitare tuuti ah, lu soft daal soft soft soft allah dal ni wëttéen bu jël rek teg sa kaw waaw day dal lu neex la voilà ndax ba mu jógee màkk di dugg Medine gis nga ni ko soxna yi teeroo teeroo voilà macha allah. waaw ah, mu di bu boobaa dinañ dinañ ci ñëw sax. waaw waaw ndax fas yéene naa ko dugal ci sama biir. album album voilà. macha allah waaw mooy talaal badru boobu mooy ah, wax noonu yéeme na de waaw am na sax ñu ni bis boobu. Uh-huh. waxtu wooyu saa yu jotaatee. Uh-huh. nit bàkkaar bu mu ci mënti def baal na la ko. ndax instant boobu xam ne doon bàkk ko kañ ko kañ ko waay. allah waaw ku mën a tëgg tëggal ko ku mën a way way ku mën a sal xolle sal. wallaahi wallaahi. defal nañ ko ko honneur bu reuy honneur bu reuy macha allah mooy loolu yonent bi dafa dal kon kuy wax ci mom tamit ci xalam ngay waxee mom mhm. kuy way ci mom tamit da ngay dal loolu am fi ma doon bëgg ñew moy bu ñu déggé sa tut Adja Maymuna sek Adja bi lu nu tufli ci sa nopp la wala da nga demone nuy ji sang bu tedd bi fi nak mo moo di màkk moom ko waral wa may sante yalla bu baax ndax man Maymuna sek la ma sama ay wajur tudde waye nak turu ajaa bi nak koku yalla moko def ci man nit dem na màkk ba ñew duñu jame man lolu daf ma sax yem ba daf may xawa jaaxal dal parce que neena ñu ko xass dem màkk ba ñew sax nekkatoo ajaa mais man ajaa bi dafa dafa dafa tafu ci man dal sama tur sax nit ñi duñ koy wax lu bari aja, ajaa ajaa ajaa rek ma sante yalla xamne lolu honneur la ma di ci sante yalla bu baakha baakha baakha aji na aji aji wat dal ma ngi sante yalla te ñaan yalla rek di dem di dem di dem rek wa loolu laay ñaan yalla te acc ci may acc ni dama gëm ne woote la ku yalla wo nga dem du alal juma ma denc di ko yóbbu nii mak chaque année dedet fofu la gëmé ni la ndax keroog bi maam Ibrahima di woote képp ku ñaari yoon dinga nga fa dem ñaari yoon ku yee fukki yoon ak juróomi di fa dem fukki yoon yi ba si ñaar fukki yoon di nga fa teew du question sa alal walla am-am wala dara woote la waaw boo gëmee loolu rek nga xam ne day yomb daal waaw mu ngi noonu sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax ndax uh, màkk gi may dem nii nekkul loo xam ne pour jóg bëgg dem màkk la nii rek. dama gëm né woté la te ma wax né la parmi mes prières exaucées sama environnement nit do wax bop sa bop ñom ñoo mëna wax si man mais do di sante yalla bu baax ndax à un moment donné dem na jàkkaarloo kaaba gi lu ma ñaan rek xép na ko dem na ba ne yàlla suñu borom ya ma seppi boole ma ci ñi tawaf sa néeg bu sel bu tedd bi ren ci lépp lu ma ñaan yàlla na ma ko yàlla nangul képp ku ma ñaanal yàlla na ko yàlla nangu comme ni ma jàkkaarloog sa néeg bu sell bu tedd bi nga gis ma lépp lu ma la ñaanal lu ma ñaanal doomu aadama mu gis ko jaxaran te loolu am na am naa ci yéeg yéeg mënu ma ko wax sama environnement ñoo ko mën a xam may dooli sant yàlla même poésie bii ma def nii sax lu ma ñaan la sur le mont Arafat fa yonent ba taxawoon di def son dernier sermon fa laa yéeg taxaw ñaan fa ne li may bind si nabi sallallahu alayhi wa sallam ndegam damay bind te defuma ko pour puukare pour wanewu pour daraja yàlla sunu boroom lu ma gëm la lu jóge ci sama xol yàlla na ma ko biral ba àddina bi yëpp di ko dégg te ñépp barkeelu ci mooy saadata daara yi bi may wax le bonheur des deux mondes moom laa tëje sama taalif bi ni ku ko dégg te mu dugg sa xol neex la yal na la yàlla defal saadata daara yi waaw alhamdulilah. Mhm. dem Makka am na waaye aji Makka am na ku aji boo dellu si normalement am na mhm. dëgg la dëgg mhm. la société bi ñuy dund Sénégal. Mhm. ci comportement yi. Mhm. ci walu jikko yi xëy na am na loo yow constaté nga ko bu amone looy soppi. Mhm. ci ci suñu comportement. nga xamné yow toujours rek yaa ngi tegu ci siraatal mustaqim euh, la ngay soppi. wa damay njëkk sante doli dolliwaat sante yalla parce que as dafa am ben émission bo xamné tous les dimanches man loolu moy bëggal sama xol dama koy suivre ëttu ko diiné yi. ëttu ko diiné yi. bu oustaz Muxsin Diop bu wal fajri de dama koy deglu ba di ci joxe sama ay contribution te ñu bari xam nañ ma ci te musuñu ma gis yalla def nañu dem ba am ci ben association sop Seydina mohammed moy jigen ñi suivre émission bi te en général c'est des femmes yo xamné ay intellectuelles lañu ak ñeneen tam ku bëgg dugg ndax ndabu nabu nabi dafa yaatu ku ñew rek bu sa loxo sété nga mën ci soop sa loxo lu dëgg donc loolu gën na may force ak doole ndax dafa nekk koo xam ne oustaz Mouhsine il est captivant lu mu la wax rek dañ ciy gis njëriñ ma dolli sant yàlla di sant nag kilifa diine yi kilifa aada yépp macha allah ndax ñoom ñoo fii remplacer Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam chaîne de transmission la message bu ñuy jàllale ah, de génération en géné en génération lu ñu mën ñu ngi koy def ku bëgg a baax ci jamono ji ñu toll di nga baax rajo yi footaal amul émission bu ñuy def te boolewuñu ci émission diine waa ñu di leen ci sant bu baax a baax a baax lépp ngir bëgg jubal defar waaye nag mag mu saañ ay noppam ne dafa tëx kenn mënu ci dara xale bu jël loxoom it taf ci gémmiñam tamit ne dafa lu tamit kii kenn mënu ci dara mënul wax tam kenn mënu ci dara dañuy ñaan rek mais gis naa tamit ne vraiment Sénégal diine ji fi ne macha allah àjjuma nga koy xam sa xol day sedd jàkk yi day fees man de xaw mais fii daal laa gis ñu tàntal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te fu ñu ko tàntalee daf lay leer ne leeram gaa nga fa sante yalla fi dal mom gis na ko fi xawma ma nak donc sante yalla bu baax xamne nit ñi dal ñi ngi ci yoon bu baax yalla nak mom dafa sak aljana sak benen wal bi jahanama ku nek wa ku nek ak sa itinéraire fi nga bëgg jaar rek ak finalité bi ak tax ñun ñëpp daal ba fu ñuy mujj rek yalla ñu yalla dugal aljana te képp ku sopp sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala nga fi boo tuubee même boo nekkee ci leneen man gëmm naa ne yàlla dina la jéggal dina la yërëm waa waaw yërmande yàlla yërmande yàlla dafa yaatu macha allah alhamdulilah waaw. waa di ko di ko tiital naan ko boo yàlla la xam ne borom bi yàlla ñëpp xaj nañ ci ñëpp ci xaj. kon nag Adja Maimouna Seck laata ñuy jeexal dama am sama xarit boo xam ni. yow tamit sa xarit bu xa xattaaral la. bu baax ñu ko naan Ramatoulaye Diop jotoon naa am ak moom jotaay waxtaan ak moom mu am lu bëri loo xam moo xam ne ko ci man euh, sa diggante ak Ramatoulaye Diop ni mu demee. man de sama diggante ak Ramatoulaye Diop su ma koy xalaat sax sama yaram dafay daw ndax nekk na lu yéeme dañu tase sama kër cousine un vendredi sama xarit la sama cousine la ma fekk fa Ramatoulaye mi def ma gis rek fuk mel ni xam pour man dama ne xëy na daf ma jaawale mais mu tafu man tamit ma am luma yek sama yaram di ki. na ma ajaa maa ngi ziar manako delo na li ziar ni presentation yi am ni tok sama cousin bi da nga ko xam man ko wax deug yalla xawum ko de way sopna ko lol parce que nit day am yek yek, tok ni nii dama rek

man bi nga koy bind xaw ma ci ban xaal nga nekkoon ñëw rek ma accompagner la may xaw di daw di daw di daw ba mu yàgg ma toog xalaat ma ne waa lii du man maa ko ñaan jabalu ma kii yàlla moo ma ko ne soxna si mu ñëw nag ànd ak teraangaam ramatulaay bu toogee ñaari fan bu ma gisul rek du am jàmm man tamit noonu ma xam ne lii borom bi la le 3 avril mun ma dañu ba ma bëgg ñu dugg si jiw ma nag xëy ramatulaay damay liggéey damay guddee mu ne ma saa yoo paree rek nii laa kii mu ñëw jël si ma 19 heures mu wàcc ñibbi ñu dem. ba li ba loolu moo sabab studio defar waa lii daal mu ngi noonu lii daal nii la demee daal toogul nag taxawul boobu ba léegi macha allah kii mënuma ko fay. ku yàlla ko yàlla fay. liggéey na ci lu bari sama doom yi dañ ko bëgg dañ ko bëgg dañ ko bëgg macha allah. donc euh, dama lay bayyi euh, nga tagato ñàkkul am na loo xam won nga ci wax la ma mëna ko ak ñi nga xam ni bu mëna leen gërum sant leen ñu jéxale mën a am beauté. waaw euh, ma di la sant yow mi di la gërëm bu baax kontaan naa bëgg naa. suñu liggéey dañuy def. waaw dëgg la dëgg la mais rafetal nga. fi nga jëm yàlla na fa yëwu yàlla jëm ak ñi fi nekk ñëpp waa Sénégal TV ah waa ñoom Youssoufa ñoom ñëpp soxna si ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar waa di nag sama ay ñoo xam ne dañu sës rëkk ci man muy sama ay collègue de service dañu baax macha allah dañu baax dañu baax dañu baax mënuma sax wax parce que kon sama xol dafay tooy daal waaw am na ñoo xam ne bi ñu ko déggee dañu jooy dañu jooy macha allah daal ndax cofeel gi ñu am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di kontaan tamit si société bi may liggéey sama directeur président directeur général ndax bu dul woon moom tey jii xëj na du ma feneen laay nekk rek waaye maa ngi sant yàlla ndax sutura laa fa nekkee. waaw maa ngi liggéey maa ngi liggéey si benn compagnie de la place ma di ci sant yàlla di ziar ñu waaw waaw fu nekk daal maa ngi fa daal. waa c'est-à-dire bu tey ma liggéey fii bu subaa ñu yóbbu ma fële donc euh, confiance boobu ma ciy di sant yàlla di leen ci gërëm jël ko nag avec philosophie avec optimisme aussi waaw man lu ñëw rek ci man rek dama naan lu rafet la lu baax la loolu mooy tax nga avancer jëm ci kanam man je ne vois pas du noir lu rafet rek lay xool incha allah waxtaanu pël waaw waaw bi ma jox benn parenthèse si société bi ni muy demee nii rek. gis nga lire buy doog a juddu day yuuxu di jooy du day yuuxu di jooy ah ay mbokam ay wajuram kontan di re doomu adam ni war na góorgóorlu ci bopam ba buy genn adina tamit ay mbokam di jooy muy ree di dem manam diggante li muy dund mu defar ko mu rafet waaw waaw lu way man si lu bax rek nga fret yóbbu ndax mo lay fekk ci sa biir bammel wa kay wa ma mooy loolu wa yalla ñu yalla doole jamm sutural ñu ar ñu sam ñu làq ñu fa yaq yàggul barke la ilaha illallah barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa leen wax ji rafet na ni ko waxe noonu waaw yonent bi leen ko waxoon liggey leen seen aduna bu mu melni do leen mës a faatu waaye nak jamm leen seen borom mom melni suba ngeen di faatu loolu lepp nek lo xam bi jiw Adja may mun a sekk bu ñu ko indi mu di waxtaan boo xam ne taataan nañ ci lu bëri ñu ngeen leen ko dégtalee kenn ku ci nekk di nga am noo ko mën a faram ci ak loo ko mën a jëlee mu nekk loo xam ne dinañ jëriñ ci sa àdduna jëriñ sa àllaaxira mu nekkoon nag tey taalifkat poète boo xam ni moom lañ accueillir ci suñu émission un mm. artiste vous parle ñu leen di wax ni nag waxtaan bi neex na duñ def lu dul di tàggatu bi yéen leen jox nag dig daje ci fan yi ñu néew ñu ñëwaat ak yéen seen émission un artiste nous parle dalal beneen daanaan boo xam ni kooku seen kumpa lay doon ca fii lay xew kon nag ñu doon seetaan yëpp jaaraama dem dikkaat nag mës ta yàq borom ba ci fan yi incha allah